dañu bëgg wane rek luy loo xam ni mu ngi ci Sénégal te di ci ñor di fi meññeef te ñu def fi benn place boo xam ni soo ñëwee nga xam lii mun na mun nga ko am nga te mun nga ko am ci gox tel ñaareel bi dana am loo xam ni daañ ko jaay même fii directement. ci wàllu dundin la. li ñuy bëgg mooy wone li ñuy béy sàmm di napp ñun ñoo ko war. lekk loolu lañuy sos kuy béy nag wala di napp lu muy xalaat su koy def mooy kuy jënd donc boutique bi dañuy fexe ba gën yombal njaay njëg maanaam la ñuy wut mooy sunu produit li ñuy def si réew mi ñu am si njëg yaakaar nañu mu nekk benn représentation si produit yoo xam ni membre fonds ci dañu ko am lu tax ñu def ko tay nak parce que suba dañay wa FONSI dañi dem Dakar si Fiera mo mo war ubbeewu suba pour dem def foo seen promotion seen produit ñu fexé ñun ñu def fi ben vitrine bo xamni du arrêté toute l'année dañu fexé vitrine bi am ay produit ku ko soxlu su ñoy nga mën ko am. am nañu déjà si jigen FONSI ni nang nañu japp nañu dañuy def ben journée journée boobu dañ koy tuddé journée djégal ko produit yu ñuy def ci Sénégal. lol dañ ko def inshallah té te fexé fexe ba mu nek produit année bu nek journée boobu dana am mais ñaarël bi daañu wax sincère na fexé mu gis wa FIARA ba ñu commencé décentraliser FIARA ci bopam ci région man ma ngi tuddu madame Fatou Bintou Diop ma ngi dëkk ngay Mekhe nek présidente du collège des femmes de la Fonce tey dañu ñëwone pour ubbi sunu vitrine bi ñukoy gëna xam ci boutique nga xamni da fay indi yenn ci produit yi nga xamni mom la fédération Fonce di def. na jigen ni ci euh, digante mbay càmm nap ak ñom seen lepp lu nit soxla bo boo ñëwee di nga ko fi am bu fekké ni ñew nga am ci quantité bo xamni euh, bëgg ci quantité bo xamni ne ko ko dañuy def appel ci wa commande bi na xam nañu fi ñuy jaar pour am am quantité bobu donc mbir la mo xamni dal dañuy ñaan yalla mu gëna développer pour que ñi nga xamni yalla natone leen ñom bayinu ñun ñoo leen bayal ñu dundé donc suñu vocation la waaw. ci accessibilité ndax mënees na xalaat toog këram téléphone rek ñu indil. Ah waaw bu boobaa nag dafay influer sur le coût. que diggante bi nga koy jëndee di la ko indil. du du boo doon jël lu mel ni Jakarta wala taxi da nga ko ciy teg kon yaakaar naa nga toog sa kër nu indil la ko mën naa nekk à condition que ñu teg ko ci prix de vente bi. dégguloo ñu ni nit ki li muy bay na koy dundee bu fekkee ni da bëgg yow li nga nga nekk mu doon loo xam ne lu yenu maanaa la. da ngay bay té di ci dund puisque da nga wara bay di ci dund ba paré bay di ci dundalé puisque am na ñoo xam ne dogalul nu mëna a bay yow ya wara bay ñu dundé donc lolu slogan bobu dafa war wara mën nekk toujours fonks mi ngi ci toujours le mouvement paysan sénégalais mi ngi ci toujours produire toujours transformer toujours vraiment commercialiser kon lolu motax tay ñu indi fi ubbi lu mel indi fi jigen ñi par le biais de la fonks parce que fonks dafa toujours jël jigen mettre ko en exergue pour que vraiment liggéeyam gëna mëna mën

pour ñu mën bay dund mën bay dundale waaye dafa am fo xamni nak benen djégo la bo xamni dafa ëpp suñu euh, dayo moy l'État l'État na mettre à la disposition des populations tous les facteurs de production encadrer len di len ñu jaay prix bu baax bu permettre ñu mën cee dund mën cee dund seen njaboot sénégalais yépp yékk sen seen puisque bu mbay doxé beneen xolal mooy la locomotive bi nga xam ni moom ma mën a xëcc yeneen secteur d'activité moom mbay waaw mbay mu la gën a réew mu la gën a fonk mbay gën laa suqali mbay moo la gën a avancé kon ñoo di ñaan état bi vraiment mu bàyyi xel ci li nga xam ne si moom la fonction di def waaw